asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu topp di ñu bàyyi xel seen jataay bi di Firdaws Asrar xaalin ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ndokkee di leen jaajëfal ñu ñu topp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu defal yiw àdduna ak àllaaxira ala kulli xaalin seen jotaayu asrar ki defal seen mbokk sëriñ Mamour Sylla Firdaws Asrar ala kulli xaalin tey ñu indi leen sirru ba am solo Eh, muy sharru kayfiya ummu musa haqiqatun haqiqatu ummu musa nekk secret boo ama am solo nag boo xam ni lu baax la ci wàllu wërsëg ak qabul mifta gu màgg a daal ci wàllu mboolem wërsëg yëpp incha allahu taala dina baax ci mbokki ture ture yi ak mbayeen yi ak siisa siisa yi ci weeru koor yu àla kulli moom lañ tënk noonu ci arab bu ko defee nag sirru bi istimaal bi nii la umu musa bu réerée nag umu musa bu màgg wallahi aqiqa umu musa taktub da ngay bind bismillahi bismillahi mi'a marra mu fois la ilaha illa allah muhammadun rasulullah mi kalimatu shahada nga bind ko mi'a marra tamo 100 fois allahu hayyu qayyum 100 fois summa suratul ikhlas saar wi kaamila suratul ikhlas kaamila 100 fois mu téeméer yoon summa ismul jalal ahamu saqakum alahu yashu mi amara summa eh, taslamu sahsamun te muy ismu boo xam ne umu musa piir la dañ ci mës a ñëw ci ñëw ci saxraaj bi ak yu demee inshallah allah taala ànd ak ñetti doomam yi nga bind ko bu ci ne euh, cent fois taslamun tanzamun moom nga ñëk bind cent fois suma ko dañ ko jubla wax ni top manam dañ ci tottal waaye suma gi do ko bindale pour ñi nga xamni seen arab soriwul ndax ñu bëree ñu top day am bu ñu defee vidéo par dañ sonnat lool ci léralé waaw waaye ala kulalin taslamun tanzamun cent fois summa tadad yushin cent fois samarusin cent fois lad lad yusin cent fois madad yusin cent fois saqa yusin cent fois hayrusin cent fois samsa yusin cent fois mayrusin cent fois te mooy mia mara mooy euh, euh, kullu kalimatin mia mara waaw ci baat yi te baat yi nag mooy doomi moy domi te aslam mun sasamul boobu mooy juróom mu nek turu doy war nak ba dang koy bind nak bind ngay def bo pare ñaan gi nga ci deftal ñaan gi nak dang koy bind doo ko wa leral mu sama duha moy ñaan gi nek ni sama duha yaa suqa bidi hayyan bintu luway yuaanidu mariyata bintul way marsiyata anata samram amram halbau bintu ruqaba ما يفتح الله للناس من rahmatin fala mumcika laha ñaan gi ada duha taktubu hada duha mi amarra e, pour ñu déggal taktubu hada duha mi amarra ta ñaan gi dang nga koy bind téeméer yoon te téeméer yoon mooy cent fois waaw boo demee nga toftal ja e, e, boo paree wa tajaxlu fil kitaabi ba'da al mawa say'an من الطيب والشكر والملح وتراب المسجد وتراب الشوق وتراب النمل وتمن تمن ثم تغسل به شمانية أيام متوليات غدا لكو يدف سافرة بابر من مي غدف كو سافرة بو دف سافرة غود لو يم تي بارفوم بو ملني مسكي غدف كو تي بارفوم رك لا واي بو ملني مسكي مو يوب الكول رك اك سوكر لو يم غدف تي سوكر لو يم اك خرم لو يم اك سوفو جاكا آه، مانام جمعه ني جوليه am na fa jumaa ji ba nekk ci dëkk jumaa ji gën a bëri mbooloo rek nga wut ca suuf sa ak marché ba dem fa mbooloo ma gën a bëri nga wut ci suuf sa ak suufu xorondom muy turaab nam li ak ak timin timin waaw euh, timin timin dama xamul nuñ ko waxee ci loxo tubaab bi ndax garab wolof la laa ko xam timin timin sax soosee koy wax Eh, eh, pali di ko wax bili werengal olof sax xawma olof olof moom mën naa garabu suukar gi lañ koy wax ndax garab gi dafa xaw a saf ba bu njëkk mag ñi daan nañ ko suukar seen i ñam kon daal timin timin noonu la ko mën a waxee ko defee nag nga boole ko sangu ci juróom-ñetti fan yu tegaloo waaw eh, boo ko sangoo juróom-ñetti fan rek jàppal ni def nga dëgg-dëgg sirru bi ndax sirru bi nag ci dëgg-dëgg mooy taslamun tahdamun bi mooy musaab bi mam ak Eh, juróom-ñetti doomam yooyu nga xam ne juróom-ñetti arab la bu ne ñu génn ci doom soo ko defee rek daanaka da nga koy jàpp du jar wérdu nag mën nga ko def noonu ndax boo ko wérdoo day ëpp waaye daa ko laal ko ba juróom-ñetti fan na nga xam ne am nga ubbeeku gu màgg-màgg incha allahu taala li tax nag ñu def ci ñetti tomb yooyu point yi wane ne am na lu des mooy secret bi fii la yem waaye dafa am leneen luñ ciy boole loo xam ne beneen saar wu ñu boole ak ismu bii di taslamu tasamun am noo ko bind xëy na sax ñi ko am xam nañ ko waaye boo ko boo jëfandikoo lii ba pare boole ko ci nag moom day mottali day day nekk ubbeeku màgg a màgg waaye boobu dinaa ko fi bàyyi pour ñu ko soxla ko ne ko soxla ku ne jokk ma ci sama numéro incha allahu taala baaxuma ma sax di def numéro yi ci kii waaye léeg-léegi siro yi day am yoo xam ne da koy laaj ndax euh, na nga koy jotee la waaw laakule àll waaye laakule daal mi ngi noonu numéro baa ngi noonu képp ku ci jokk ku man nag nga bañ a vocal ci whatsapp bi te jokkuñu ndax léeg-léeg whatsapp bi dañ ci bëri na ay vocal yoo xam mënuñ koo tontu wax dëgg yàlla ndax boo xoolee mboolem ñi lay topp yëpp bëgg di jokk ak yow te ku na ne day am yitte ju mat sëkk eh, daanaka daal eh, ak sa yenn yitte bopp daanaka doo ko mën a boole waaw ku ñu jokk daal boo ko yittewoo eh, faaw nag nga xool dara loo barkeeloo loo barkeeloo rek laajuñ kenn dara lu mu barkel lu mu mënti doon baax na donte ab dërëm la sax baax na ñu jox ko ngir yàlla barkeel ko ndax loolu mooy matériel yàlla dëgg-dëgg Ah, jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné ci seen jotaay bii di Firdawsi Asrar ngir lépp luñ dugal ngir laay biir leen ko rek ngeen mën cee jot incha allahu taala